sëñ bi Meissa Babou maa ngi lay nuyu. naa lay siyaare bu baax fay naa la. yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllub koom ngay professeur yi tamit euh, kon dinañu mën a waxtaan lu jëm ci kérosène bi nga xamante ne dañoo jàpp ne dina manqué lu toll ci ñaar ci ay bis noo ko jàngatee ak lan la mën a am ci njeexital ci koom-koomu Sénégal. waaw damaa jàpp ne nag gis nga entreprise ku ko yoree am na loo xam ne nii donte boulangerie la waroo xaar bañ taal machine yi ñu ne ñu ne farine bi jeex na. Eh, soo xamee ne yow da ngay lakk fukki saak bëccëg bu ne hmm. wante sa fournisseur fële la ne xëy na soriwut moom su boobaa sax su la neexee nga ne fu fu fukki saak mate rek eh, dese rek ma dem ca bitig bay jëndi ko fekkente ne nag yow fa ngay jënd ji ci biti réew la hmm. mais loolu ñaata temps la lay jox xëy na ñaar fukki fan ngay def avant commande bi di egsi mais loolu fekkente ne nga yor lu day ni ab aéroport nga xam ne da nga fay jaay essence Euh, soo demee ba sàggan ba sàggan ba ñu xëy xëy ne na kët ne jonn ñu ne essence ba jeex na te benn commande ñëwagul ndax ministre bi wax na ko léegi bato bi war ñëw tey lay ñëw wala suba mais xam nga bato bi ñaata fan lay def li ci nekk yëpp le vingt siècle euh, vingt trois daanaka daanaka ñeenti fan lañ koy consommer mu jeex léegi nag problème bu mooy est-ce que problème mu gestion bi moo baaxut ndax teelu ñoo alerté deuxièmement gestion bi kay baax na wante ña war a jëndi xaw ma AIBD lay doonam wala xaw ma kan ministre de en tout cas de l' énergie amuñu xaalis pour mën a jënd bato boo xam ne nii lu mu gàtt gàtt gàtt danañ ko consommer weer consommer weer xam xamul dox hmm. euh, la laxasu ci ci ci perte man na mën na sakkan waaw ak euh, doye di daal hmm. maanaam ñu ne Sénégal moom vraiment dañoo doye di waaw hmm. ah, ndax seen aéroport bee sax amatuñ essence xamatuñ yooyu luñ jar rafetal la daal gis nañ ko kon mën na ñaawloo sax deru Sénégal waaye tamit aéroport ci jamono ji nga xamante ne Sénégal ñu ngi naan dañu bëgg mu nekk ab ëpp aérien ban politique ci war dëgg. waaw li ci war mooy euh, rafetal nañ ba ba heure bii am nañ aéroport bu rafet euh, bu baax avion bu ne mën nga fi wàcc ñu ñu nekk ci position boo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel mënoo jóge côté Amérique jëm côté Asie te doo wàcc Ndakaaru solaat essence ndax dafa sori. même ci biir Afrique bi nii nga soo wàccee ba ci suuf wala nga dem ci ko wetu ndeyjoor bi muy Afrique de l'Est ba ci suuf ku fa départ même soo doon dem Amérique da nga ñëw ba Ndakaaru wàcc fi def sa essence loolu ñuy wax transit nga continuer sans compter ñun Dakar xam nga ne aéroport bu bu macha allah la parce que ad compagnie àddina bi yëpp dañ fi ñëw kon nag comme que eh, dem nañ wax dëgg yàlla ba tollu noonu am chance su position bi ñu am ndax position bi xëy na Côte d'Ivoire amu ko. Mali amu ko keneen amu ko ñun ñoo ko am ñun ñoo fete sowu jant kon nag loolu dañ ci waroon profité bu baax a baax daf ko ëpp li nga wax léegi boo xam ne ni wax dëgg yàlla àddina ku jóg ne jaaruma ndakaaru sax da da da lay xaw a metti kon suñ demee ba tollu fii damaa defe ne nag léegi nag la ca des euh, buñ buñ ko caaxaanee hmm. ay ay vraiment kérosène bu manqué essence la rek essence bu manqué ci aéroport bi loolu wax dëgg yàlla Euh, ah en tout cas du rafetul daal ci dégg-dégg. Mhm. ci ci àddina bi. ci pompe ci pompe bi tamit fii ñu ngay njort ni xëy na boo moytu sax ci manqué la jëm ñu ngi wax sax ci wàllu yokkute euh, loolu ak euh, teg ci port bi nga xamante ne tamit daanaka li doon dox doxatul noonu ba ñu tëjee frontière Mali bi moo tax mhm. foofu nga xamante ne professeur koom-koomu Sénégal daf ci sukkandikoon bu baax a baax tey mu mel ni dafa lompoñ waaw mais xam nga décision yi ñoo baaxut xam nga Côte d'Ivoire bañ joxee décision ne dañuy tëj Mali. Mm-hmm. moom dafa joxe fukki fan ak juróom. ne borom oto yi ku ci am loo loo doon yóbbu Mali kuy ñëw fukki fan yi de moom su matee ak juróom dama koy tëj. Mm-hmm. mais ñun Sénégal gi nga jour bi ñu ko waxee lañ ko tëj. oto dematut oto dikkatul te ñun bokkuñu Côte d'Ivoire bokkuñu kenn nag ci sous région bi suñu relation ak Mali ndax ñun ñooy Mali. ñun Mali fii la fii lay jëlee léppam. Mhm. suñu port bii Mali koy dundal. Mhm. mën naa wax loolu du du rek Sénégal Mali ci boppam li fi indi ba mu ko taxawee ba léegi <clears throat> ay perte képp la ñuy indil loolu mauvaise gestion la dafa am yoo xam ne nii kenn du ko gere ci fët fët mhm. décision da koy jël woo acteur yi ngeen leen kat lii sax man jëluma ko ci kaw la jógee ñu ne la waa d'accord nañ léegi may ñu ñetti fan ndax am na oto yu départ ñu ci yoon bi. mais kenn du jël décision nag fekk oto boo xam ne mi ngi traversé kii di raa ay nga ne ko doo egg kon jàpp naa ne ay erreur daal ci ci ci yenn manquement yi daal ay erreur la ak yenn yenn euh, situation yi. Mhm. ba nga xam ne mën na ëlëb euh, lu wala mu yàq lu bari daal. lu ñuy dund ni nag ci ñàkkub euh, essence boobu kérosène bi yëpp ndax mën nañoo jàpp ni déjà mooy effet maanaam jeexital guerre ba ca Ukraine moo tàmbalee. waa xam nga euh, ca ginnaaw ne amoon na ay yokku-yokku hmm. mais pétrole bi am na foo xam ne mosu fa eggu fa woon maanaam cent dollars tey nag ma nga ca léegi nag foofu su fa eggee mën na sax dem ba cent quarante wala cent cinquante dollars daloon nañu fi deux mille huit mais su boobaa tamit gis nga lu mu cher cher cher nañ ko jëndi mu am ci réew mi nga su la neexee nga ne li ma ko jënd laa koy jaayee say boo litre bi dem ñetti téeméer nga xam ne lii moo fi ne ñun kenn dofut ñii dawal oto xam ne kon Euh, chaque jour kenn ku da nga ubbi xool prix pétrole ci ay nu mel. Hmm. kenn doful donc man damaa jàpp ne eh, sévérité de prix la man bañu mu ñu appliquer ko mais li gën a réew mooy li ñuy wax rupture daanaka nga xëy ñu ne la euh, amut waaw pénurie boo xam ne nii. Euh, fu ku nekk daw jaar droite xam ma essence su manqué ci réew mi réew mi tasaaroo. Hmm. nit ñi duñ mën sax xëy liggéeyi. Hmm. kon nag jàpp naa ne ay manquement yi léegi nag li ma ci tiital. mooy li ko ne dafa mel ne saar dafa am problème waaw bu fekkente ne loolu c'est vérifié njort naa ne euh, dañ dugg ci gudd gudd goo xam ne nii ah, duñ ci gaaw a génn. Hmm. nooy jàngatee nag professeur euh, alerte bi nga xamante ne FMI moo ko daal di def nekkoon euh, croissance bu Sénégal bi ñu xayma ci six virgule un pour cent boo moytul dina wàññeeku. waaw c'est normal xam nga croissance li koy def mooy entreprise baa ngi dox entreprise baa ngi dox bee dox. Hmm. nga même su dee ñu ngi ubbi mën nañ bañ a doxle. xam nga maa ngi lay jox léegi problème mu bi eh, mën na jóge cinquante mille tonnes bi jëm soixante dix mille. Hmm. gisoon naa ko ci benn poste nag wóoruma ndax loolu dëgg la am déet. mais tey supposons ko loolu nekk dëgg mais am na ñoo xam ne dañuy arrêté seen bâtiment te pourtant ciment dana am ci réew bi mais dañ naan ciment bi fii mu toll man mënatuma continuer. Hmm. fer bi pri bi day doubler ndax fer Ukraine aussi lay jógee. kon gis nga ni muy impacté yenn entreprise ba nga xam ne yenn consommateurs yi su su su mën na sax arrêté benn BTP mu taxaw benn consommateur yi wàññi lañ doon consommé hmm. loolu mënut a ànd ak euh, maanaam comme bu buy fuur hmm. daa da ngay xam ne kon wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek xam ne am na tuuti mm, euh, maanaam daal lu wàññeeku ci marché bi te loolu c'est très normal hmm. il faut que pas ñuy ragal di wax dëgg situation dëgg bi ni ni ni mu demee il faut pas que ñu ñuy diriger ñu ko ragal. Hmm. gi nga lépp loo xam ne nii da lay woon na lii nit ñi dofuñu da nga koy expliquer ñu comprendre ko loolu ragal amu ci gi nga croissance cinquante cinq pour cent quarante deux pour cent la Sénégalais yi yemale. Hmm. lijjantiwuñ luy croissance ndax croissance xam boo xam ne ni ay banque ay ciment ñoo la ko jox. ak tey pétrole ba la ca offshore ba. Hmm. Sénégal yi ba baykat beeg lu ci yoonam. li sa sa sa sa sa sa PIB boobu ak sa croissance. kon laleen leen ñor euh, fekk leen ci wax leen ko mais li banque mondiale di wax ñoom ñu topp ci di expliquer dama ragal sax perte temps la. <laughs> lan moo waral nag ay réew yu ci mel ni Sénégal saa yu dara xewee ca biti réew rek ñu njëkk koo yëg. waaw mais modèle bi ñu am la ku ne la Sénégal ban économie la am mais ko économie buy buy importer maanaam lekk gépp dañ koy importer. daanaka sax sooy xool courant bi dañ koy importer ndax euh, essence bi koy doxal. Mm-hmm. dañ koy importer mburu dañ koy importer ndax blé bi fële lay jógee nee naa la ciment bi euh, li koy ñuulal di këriñ dañ ko importer comme que nag ñun réewu importer a ñu loolu mooy sunu modèle loolu depuis mille neuf cent soixante jógu fi te benn gouvernement jógu ci nag pour euh, ñu ba dootuñu importer ceeb waa diwlin lu tax duñ ko defar Sénégal. dañ koy importer nga suñu gerte gi hmm. usine bi su ko defaree mënu koo jaay litre moyen de ñetti téeméer parce que xam nga gerte poison la moom dafa jafe. Hmm. yeneen diw yi ñoo gën a yomb. mais même suñ doon jënd yeneen yeneen xott yeneen xott di ko defaree fii sax Sénégal ñu defar ko fi ñun daal li ma la bëgg a yëgal mooy feek ñi ngi ci suñ façon bii euh, di jëndi mbubb muñ sol di jënd tubéy juñ sol di jënd luñ lekk ak lu ñu naan. lu lu feebar lu feebar biti réew ñun danañu wopp hmm. loolu dañ ko war hmm. moo ne de njiitu réew mi dafa mel ni yëg na ko ndax ci discours à la nation bi mujj nee na na ñuy jëfandikoo euh, lu ñuy liggéeyee fii te tamit di ko liggéey de toutes les façons li mu jàpp daal ci tënk mooy euh, Sénégal dafa war moom boppam ci li muy dundee ndaxam yow gëm nga ko. wax mas na ko wax. 2017 kay. Hmm. moo ne woon autosuffisance en riz ko xaar mu teggi slogan la rek ah tey di nga suñ ñëpp na woon waaw ci loolu mu wax noonu ñun ñëpp ñu xëy na nañ dem jënd ceebu mbay mi xam nga ñaata fan lañ koy lekk ceebu mbay mi jeex hmm. deux semaines nga lañ fi bay lépp suko ko Sénégal yi taxawoon dinañ ne kenn ku nekk dem jënd saako hmm. ceebu mbay mi ñoo yore ñetti weer ndax dafa bariwut le lu ñu fi produire ñu war ko lekk fii lu fi am mais dara da fi soble bi gis nga daanaka moo ci xaw a tane ak mais le temps que ñu ko ñu commencé consommer xaaj ba nëb. Mm-hmm. ndax amul benn dispositif de de stockage boo xam ne ni mën nañ ko euh, téye pour mu bañ a yàqu jàngaluñ jigéen ñi ni ñuy ni ñuy bañ a fexe ba carotte bañ a yàqu nga xam ne mën ko def six mois. Mm-hmm. ci benn ci benn pot. te yooyu yomb la donc loolu du waxe kese il faut que euh, ministère yi mu concerné mm-hmm. ñu wàcc ci terrain bi. daal di de teg ay politique yoo xam ne nii fii ñaari at nag waaw kay ñetti at lii mu wax dana mën a nekk ñu lekk euh, ak di naan li nga xam ne ñun ñoo koy defaral suñu bopp. Hmm. bii dogal bi mu jël fàttali na ko sax bu yàggul dara ni kon euh, wàññi njëgu euh, ceeb bi suukar ba ci sax diwlin gi waaye ñu gis ni kon ci terrain bi maanaam boo demee ci fa ñu koy jaay loole yokkul ñàkk déggoo boobu diggante état ak commerçant yi noo ko jàngatee. yoo xam nga ne ministère bi moom def naa dañuy fonk ministère du commerce yow mënoo tëju sa bureau ay peut-être ay consommateurs j'en sais rien décider voilà tel prix lay daal lii lay lay jar lii lay lay jar man jour bañ ko njëkkoo def ba commerçant bi ma jàkkaarloo fii daf ma woon benn facture boo xam ne suukar la. Mm-hmm. bi mu jël machine am divisé. Euh, six cent vingt cinq bi ñu waxoon. Mm-hmm. moom bi mu divisé mi ngi woon ci six cent quarante. mu ne ma ko léegi léegi man nee na naka laa koy jaayee. kon y problème de coordination normalement stock bi fi nekk ñoom ñu xam ne grossiste yi lii lañ ko jaayee te détaillant ñu ngi koy jaayee lii loolu dañ ko waroon muñ ne léegi comme que lii mi ngi fi stock bi may nañ leen ñaari semaine képp ku ci stock na nga ko jaay su ñaari semaines yi passé nag nga xam ne dañ toll le treize ñu ne à partir du treize mais mais mais jël décision tey tey tey tey tey bëgg ko appliquer tey tey tey tey tey mais chauffeur yi ñëpp lànk boutique yëpp lank ndax hmm. kenn du jaay à perte. Hmm. ñu gis kon euh, njëg yi di gën di cher yenn produit yi sax tàmbalee raar lu ci mel ni gaz ak ñoom yi seen euh, buñ ci yokkee tamit kérosène bi ñuy wax tey euh, Sénégal nag fan nañu jëm ci wàllub koom ndaxam am yow en tant que économiste mën nañ ci sukkandiku ne kon xëy na fii ak tel diir yëf yi dina tànn. gisuguma loolu de gisuguma benn waxtaan benn décision volonté. Euh, boo xam ne nii <clears throat> na ñoo jële fii position bi ñu nekk actuellement baaxut hmm. ndax développement suñ ko doon dañ naan nit la nit lépp looy def na amal njariñ nit ki xam nga kon mën nga maa wax ne stade bi amal na njariñ nit waaw d'accord na hmm. xam nga mën nga maa wax bi amal na njariñ nit man daal hmm. mais li ma la bëgg wax mooy nit commencé wu ci terre commencé wu ci stade nit dafa war a juddu am hôpital ak nit ñu jàngal ko mu dem ci école bu baax jàng fa njàng mu baax su loolu ñuy wax capital nga xam ne dana ànd ak wér yaram ñu formé ko ñu taxaw nekk jàmbaar ku moo mën a dem stade kooku mën moo mën a yéeg ci terre kon nag dafa mel ni dañoo commencé ca kaw bàyyi ci suuf loolu nag euh, day mi nit ñi ñoo sonn ndax réew moo xam ne ni yow euh, kenn du la dimbali ci ceeb ak diw gis nga ni mu chéré facture courant képp koo ko ci jox muy bëgg a dee mais dañ naan ñun ba pare euh, dara matu fi du soble du pomme du ceeb du dara lépp la ñuy importer ji mais finalement ñun est-ce que duñ changer politique te bàyyi defar état ak tali te nag jublu ci mbay sàmm napp parce que napp bi xale yi fa nekkoon yëpp découragé nañ bàyyi nañ ay marchand ambulant lañ ñii dugg nañ ci gaal yi ñu ngi dee ci àll bi hmm. mais lu ko lu ko indi lu dul secteur ñoom lijjantuñ mbay lijjantuñ ak càmm càmm gi dañuy xaar ba nag yi xiif rek ñu jël benn trois milliards daan ne wala dimbale leen ci mais loolu du politique donc il faut lu tubaab di wax changement de paradigme hmm. nañ soppi doxin nañ arrêté ay nga nga pont ak stade xam nga tax mu yomb hmm. chinois du waxaale day ñëw ne la bëgg nga pont mu ne waaw mu mu mu ne taret cinq cent milliards ne la signé nga signé mu ne la orwaar dafa yomb gouvernement yi koy def yëpp benn dërëm duñ ko ci def lu dul nag mu yokkal laay bor ngay fay rek rek bor yi moom ilaa abadan ñu ngi fi defar defaral ma stade defaral defaral ma autoroute à péage defaral loolu loolu lañu wax fek ay tubaab a koy defaral banque mondiale di wax d'accord ñu dem nag ba xoj la ci bor bor ba yow léegi mille francs CFA mënutoo koo wàññi ci courant ndax soo ko wàññee da nga koy subventionné hmm. te banque mondiale du ko nangu fooñ lay xaar mooy métti daal en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax Meissa Babou may fàttali ni kon économiste nga di tamit jàngalekat. merci beaucoup c'est